corona lum ñu teg moo bëri xam ngeen ne Baye Fall jéesul dañoo am feebaru cant fu ñu nekk dañuy cant dara jeexul rek jéesul wër laa xii ni jóorin saaliw ne si sàppe gi nga dégg Souleymane cin kin cang ñu tax ba cin kin cang yàlla bu jóorin saaliw ñëw di def sa yi noonu taxawaat ah lépp ak corona waaye sa booxul ma corona waaye ah. man xaw ma sama baay ma tooñ xaw ma maa tooñ sama bopp waaye lii rek jàngoro la lii moo raw corona ndax lii ma jën nii mënu ma cee dara oh, Sane a ngi nii man booy bii daa mel ni yëgul lu ñuy wax ci jàngoro ji te moom intellectuel la mais xetu jigéen la bëgg booy moo ñemee accrochage foo ko fekk day kalonte waaw man li may taxaw fii di ko wax te moom intellectuel la te ma bëgg naa xam lu ñuy wax ci corona bi te amagoo gis waay ah pexe pexe la nag ndax moo fi sës de waaye jaru ko waaye naa dem rek alsan alsan alasan bàyyi loxo gono gi alsaan ba may wax ak yow nga déglu ma alsaan alsaan bëgg nga jigéen alsaan eh man sa baay su ma sa sa baay bi wax ni ko ne ah sama di ma bàyyi ma wax alsaan alsaan mën nga ci ndaw alsaan xamaa xamoon yàlla day tere yàq ndaw alsaan li nga yàq ci ndaw ci at mi bari na alsaan alsaan lii rek yàq ndaw la nii mën na koy sentir te doo ko yëg alsaan <laughs> alsaan eh bu doon sa baay doon na ko ñemee na yàlla. doon sa baay li waa baax na ba tey rek. Alsaan yaa ngi dox ba pare ñu ngi sa kër ba pare yow yaa ngi dox. man corona damaa mën a toog toogloo man. corona mënumaa toogloo te bu doon sa baay doon na ko toogal ca kër ga. na nga sonal nit waaw baax na daal. Alsaan ji nga man benn problème laa ko ah waaw ba tey rek. kii day wax ci feebar bi jàngoro jooj nu mu tuddati. corona corona xaw ma waaw mais waaye man luñ ciy wax lépp dama koo xamut te damay bëgg su ma toogee sama moroom paay di wax ñuy dugg seen nopp may xam lu ñuy wax yëpp dama koy bëgg lii xaw ma lëla xaw ma ñu e, nga la les échos les les échos waaw waaw lii la ñuy waxate jàng leen ngeen may journal xam nga sax alsan loolu yëpp amul solo yow tekkil ma lu mu wax ci ci olof rek man nasaraan gi daal laay bañ a dégg man moom waaw leen lañ ci wax nee nañ dugg na ci bi te instant lay déplacement yi ngay def maanaam doxantu bi. ah ah ah ah ah, ah Alsaan. te di ah, kii bi waxee noonu. samay déplacement man wala déplacement am dëkk bi. déplacement bi ñëw di joxe loxo yi. Alsaan Alsaan man bu ma toogee ki may jox dund yow. ah nee nga Alsaan man damaa yor njaboot. damay dox di dugg si ruq yi di liggéey samay bopp ah, ceeb boobu lan man ceeb yooyu yëpp intéressant parce que man gisuma ko man damay lijjanti sam bopp wéeku ma sama bopp ci kenn yooyu waaye kii war rek mu dem nee mënee raxasu nga ngay raxasu waaw leer cet moom cet moom yàllaa ko njëkk a digale ndax cet daa baax ci doomu aadama waaw joxe loxo tamit dañ koy ñun nag foog ñuy joxe loxo ndax ñun fii koo fi romb salaamaaleykum mu ne daa am loo ko jàppal ah, saafonte ñun dañ koo tàmm ñun sénégalais ay doomi jullit lañu dañuy saafonte dañuy saafonte de waaw na dem waaw waaw joxe loxo bi ci mbedd loolu la ñuy bañ. baax na ak lan. ak lan. ak booy sëqat def nii. waaw waaw waaw loolu sax ndax ndax ñëw ci digg nit fekk nit ñi kii ngay sëqat seen kaw. <laughs> ah déedéet waaw eh, dama ah. coronavirus gii ah, maa ngi jégalu. alsan man sa bàyyi laa. waaw taxawal ne rek. sa bàyyi laa alsan. coronavirus amul mbirum bàyyi de rassemblement bi dañ koy bañ gis nga jumaa yi sax <laughs> déet déet alsaan jumaa ji bëgg tut ndax jumaa ji man mii sa baay mii man mii ci laay suturloo déet bu jumaa ji alsaan yaa ngi nii yor pari foot te kenn waxu ci dara alsaan alsaan sa pari foot bi dañ koo tëj alsaan nit ñee ngi dajaloo sa pari foot bi nit ñee ngi dajaloo sa pare foot bi rassemblement la rassemblement la alsaan jumaa ji dañ fay jaamoo yàlla ñun ñii sunu zaan yi nga xam dañoo resté si jumaa ji lañ mën a wéetalikoo di dundal ak sunu borom yenn saa ci lañ ñuy jox sarax ñu yóbbul sunu njaboot alsan ñun boo tëjee jumaa ja lor nga ñu ah, ku am ku mu doon bu tëjee jumaa ja lor nañu alsan baax na yow dama yaakaaroon ne booy bi intelligent nga waaye duuli maam xamoo ko ndax suñuy jumaa ñun boo ko naree tëj te yàlla ndax ndax man ja baax ña doon nañu wax ak ak décision ku mu mën di doon ab dëkk daal boo demetee ba dégg too fa allahu akbar gàddaayal dëkk génn dëkk ba ndax xam ne àdduna day tukki yow nag yow nag sa ndey xam naa ko bu baax sa baay xam naa ko bu baax xaw ma loolu ñuy wax laabaan doo ko am wax ko say doom booy peer baatu peer gi laa bëgg nga ba ko baatu peer gi laa bëgg nga ba ko du ma a moroom waaw léegi man lu ciy sama yoon baax na yow moom nag li ma la wax bu yeboon na dugg sa nopp waaye avance rek waaw imam imam Moustapha moom fu mu nekk Moustapha ñaari fan a ngi ne mënul ñëw nodd ci jàkka ji loolu pour lan la du yoon de waaye ah? tey moom bu ñëwee dana nodd lan daal xamal naa la na ñëw nodd ci jàkka ji mun na ko ñëwut keneen ku ñu noddal un point tout non Moustapha moom dafa tàmm li tàmm na li imam bu ñu xaar Moustapha noddul ñu julli kenn du xaar fi Moussa Fall. ah dëgg dëgg tàmm na lii de. yow waxi nit ngay wax am am waxi dof. ah waxu nit laay waxi ma am de. yow nan la ñuy jullee te nodduñu. ah waaw danañ ko xaar mu ñëw. ah mu ta nekk dana ñëw tey moom noddu gi moom dana ko def. buñ cee dëkk nag jaaxle ba nga julli miir bi nii rek. nit kii keroog ba ko policiers yi xam ne gendarmerie yi dóoree fii ba léegi. c'est a noddu waaye dana noddu. salaamaaleykum. loo tax mu ne daa demewul noonu. yow foo taara jigéen la taar ren. na nag man mënu maa noddu de ah imam man dé man fa mu nekk nii dégg naa noot dag yëpp dañ ko noot dañ koy tere bu yëgoon nañ ñëw rek julli noonu moom déet kan nga ko fi moo doon ah, julli mooy yoon mu jeex imam imam ah. imam mooy yoon imam yaay jiite mbooloo hmm. te booy jiite hmm. di xalaat ay alkaati hmm. julli jooju baaxut yaa may dégg yow euh, sëñ Cheikh sëñ Cheikh président jumaa ji nga man wax jaa ngi bëgg bari sax président jumaa ji nga mën ngaa nodd wala mënoo nodd su ma noddee di nga likaam. booy nodd may likaam. su ma noddee di nga likaam. yow waxtu baa ngi nekk tey ngaa bisimilah noddal jumaa julli moo gën a bisimilah. baax na. defal nañ sàppe. imaam. imaam. Eh, Moustapha imaam. imaam maa ngay nodd de. Moustapha yow wala soo ragalee ma ñëw nodd. mënu maa taxaw taxaw gu bari ah su ma likaamee di nga kàbbar. li li ma def nii lan la. est-ce que su ma likaamee ni nga kaabar imaam likaamal. ah julli ji moom nangu ji moom nangu ji moom ci yàlla la la la la dépendre. waaye daal fexeel ba ah likaamal. ayca bisimilah. mais Moussa Ndiaye sa papa da nga rëb bopp de. waaye lan moo da nga wax loolu. waaye keroog ni ñu ko def fii ci couvre-feu bi. Hmm. jàpp ko fi dóor ko fi dóor yi métti. Hmm. mu koy tey dagale paa fii ngi nekk di julli. ah paa bi daal lu ñu ko def baax na daal man gàlla la nekk di ma sonal wax bu bëri di ma di ma tum loo xam ne defuma ko si gaale bi daal. ah man daal dafa soof daal man moom yow laa ngi seet. Hmm. su doon loolu dama doon woo police tey. ah wóol police man loolu moo may gën a sax. ah man ma am jàmm sa si biir kër gi. waaw ndax loolu moom du yoon. ah wóol police. Ah. man loolu moo may arrangé. asalaamaaleykum. wa salaamaaleykum. wa yàlla wa lii mu doon. boo yee bomb. Ah. la xalam sa. batal. la la la la. lépp ak yéen. Ah. bomb. lu xew xaar dal leen xaar timisen dal leen mais mais mais ma ilaha illallah lu xew lan lan dama sama yaram xaar li xew lu xew daal yi ma gis ay ram geus lan lan li ay ram geus geus lan lan leen allahumma laqasuntu dal leen ay imam ñaanal laqasuntu imam ñaanal ah. suntu imam ñaanal defal ñaan imam defal ñaan kon ngeen ziyaare ko de imam la ilaha illallah ah. imam yow ay man ñamo moy yow yow imam yow na taamu ñëpp ah defal naa ko déglu ma déglu ma kii imam la man laal laa. Hmm. kii président jumaa ji la. yow nag da ngay wër jaamukatu yàlla yi fu ñu nee rek nga ñëw dooleel leen. waaw comme que nag loolu am na doo fi joxe dara kenn sasu la fi dara julli nga ba noppi. yeewi nañ la waaw demal xool loolu lan la ah demal rek. daal ah. man daal léegi daal yéen daal ma ne de tey la quoi. demal rek ma dem demal. ma dem yaa ngi njëkk a dem moom. dem moom nañ ko parce que ñun duñ fi ne. imaam ñaanal de. ah Babacar jarul waaj. ñi ak seen kër gi Babacar say dàll Babacar. tiir rek Babacar suñu defaat tiir rek moo yóbbul. bu fi bu fi bàyyi yóbbul say dàll Babacar. imaam innamaa rabbuka. la ilaha illallah. boo demee nga wax soxna ba sama soxna si na ma préparé fo ab kii qualité. Babacar demal Babacar. jarul waaj Babacar. génn moom ni nga ko def. sëñ Tuba dinaa génn dimbale ma sëñ Tuba noppi. di nga dem de dem moom loo gis. mais du ma leen ma. kenn néew fa du ñoom. du ñoom du ñoom. wéy de yooyu sama njëriñ yooyu yooyu ay tonton commandant ñëw na waay tonton commissaire. ñu waay waay waay. tonton sànq waay imaam lépp ak yow waay. ay imaam allahumma ah, la ko suuf waay newuñu si koor. imaam man. ah wa ah da ngay dem imaam du ma dem de. ah lu tax ba doo dem imaam du ma dem nag de. lan moo tax ba doo dem. lan moo tax ba doo dem imaam. imaam xoolal li ngay def xool sa diggante ak sa borom. ah waay waay waay ji nga nag. sëñ Cheikh man fii diggante rek. sëñ Cheikh. imaam man damay dem. sëñ Cheikh waxtaan wax dëgg fa la te dañoo nekk ay mag te instant bi dañoo toll ci ay situation. Ah, xam ngeen ne jumaa ji kenn di fanaan. sëñ Cheikh demal rek. baax na danaa dem de waaye. sëñ Cheikh jërul guddal. damay dem. imaam ah, ah, da ngay dem de da ngay dem. demal rek. day dem waaye demal waaye bul yëngu tamit demal waaye demal rek. ñoom ma ne ah imaam nag imaam dañuy waxtaan lii yëpp yaa ngi ko yóbbee. bu ma noddee di nga kàbbar kàbbar moo tax it ñëw nañ waaw topp ci kan imaam guy tëj jumaa ji ah, kon wax nga ko imaam yaay dem kan ma imaam imaam yaay dem kan ma imaam bi kuy bilaal bi imaam lu mu ci am du jiite demal yow sa programme si jumaa ji ñëpp xam nañ ko jullee néew jiite kese la kay demal kon ma man dëj laa fi nekkee si jumaa ji noddal dëj demal rek imaam jarul ñaan imaam demal rek nag imam demal waay imam demal imam imam génneel imam waaw en gauche yéy wuy sama nday jàppal la a dema ah <laughs> fu mu nekk nii de man rek maa fi des de waaye ñuus ñaari yoon moom kenn xanaa kenn war ma koo def ñuus ñaari yoon waay waay waay waay waay waay solution du ñàkk waay lii ma si ma ko indi woon doon jaay xaw ma xaw ma xaw ma ay yëre tubaab la xaw ma waaye moom foog ma xool nu ma ci def ba génn ci léegi xam naa ne moom tey laa mu jénnotu si jumaa ji tubbi moom dinaa ko def li gars yi naan tubbi dinaa ko def de tubbi moom dinaa ko def léegi waaye nag dara lu ci mënti amin rek ñu xam ne loolu la situation situation la dañuy xam ne xoola imam xam nga ne lii tiit la bantam bii sax daf may mën a protéger mbuus bii mën nañ maa jàpp xool mu ci sama yére yi garaam bu bu yeeg yooyu yi daal fii laa koy ba xool nag nu ma fexee génn lijjanteeg ñoom xanaa su ma doonee njaagu dinaa mucc eh, maa ngi wàcc de. Ah, mu ñëw wàcc de am na de. Eh, góor gi gi taxaw xiir la yor de. yow noonu julli ci biir sang yow ci nga bokkoon. man man Mathias Mendy mii. <laughs> Mathias Mendy waaw te loo ci xamul. bokk ak ana benn ndey ak baay. au nom du Père et du Fils amen.